kon boo jàppee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangul ni jàpp nga ci mbëggeel ba ndax yàlla nee na yonent bi mbëggeelam la kon nga yegg ci ka nga xam ni moo la wooni la sama mbëggeel a ngoog toppal yoonu mbëggeel ba yegg si ca man kon foofu moo gën a war a foor kon da ngaa jàpp ni fa na foor ca moom it la la jox muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko waxee noonu nday ndeysaan bismillahi rahmaani rahim saar bi ñu jàngoon tàmbali ko muy suuratul bayyina ñaareeli aaya bi tey lanoo jàng nii rasulun minallahi yatlu suxufan mutahara fiiha kutubun qayyima kooku mooy ñaareelu aaya ca suuratul bayyina rasulun min allahi yatlu suhufan mutahhara fiiha kutubun qayyima nii la araf yi dikkee nii la saar ba nekke ci biir alquranul karim ci ni nu ko jànge yàlla na ko yàlla yombalal yàllaa ngi xamal nit ñi liim na yi xeet ne mosuñoo bàyyi di caay-caay ak li leen mës yoon yónnee yëpp ci ay xeetu yonent yonent yëpp nag ñu nga bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala ne yoon yooyu la yonent benn kàddu lañu leen yónnee ñoom ñëpp mooy ne yàlla nee na amul ko mu bokkal ba muy liggéey amul ko ko jàppale kenn terew ko it ba mu bëggee indi seede amina fii ci àddina kenn na terew ko ko waaye ba mu ñu tànnee ñun ñëpp itam nee na kenn na ko ko nee na it amul kenn koo xam ne mën nga ko uutu ca la mu warloog ñun nee na kenn ku ci nekk it ba keroog bu ko neexee farla bu ko neexee bàll fi bu ko neexee yàggal la fi bu ko neexee woo feneen na mu jëflanteeg yow ak na mu ko bëggee lépp nee na fa alun li maa yurid jul arshil majid nee na namu ko neexee la ko defee te lamu la mu bëgg na mu ko bëggee la kaa defee borom pale bu rafet ba jul arshil majid nee na borom pale bu rafet ba la de moom mawlaana subhanahu wa taala ndeysaan yooyu la xeetu yonent yëpp ci anamu doomu aadama la leen di indee ngir tànn ci ay bëggeelam ngir setal leen sellal leen allazina na lay doon danañu doon ñoo xam ne danañu gëm bu ñu leen ne alquran gi la yonent bu yoroon a uuf nañ ko ñu ngaa xool ñu ngi kaa ñu ngi kaa setantal waaye ñu ngi kaa laxasoo muy doon seen lépp wallaay ndeysaan allazina yuminuuna bil xay bi bi gën a foora ngoog mooy ña nga xam ni danoo mel ni kon yónnent baa ngi nii akon ah, bu ñu janoo woon ak jëmm ji nu ñoo ak lu ñoo def jëmm jooju bu ñu janoo woon ak mbëggeelu laa wax de nu ñoo def dama kaa laaj lisaan waaye nee na nit a ñàkk xam boobu mbëggeel moo tax mu ni mbëggeel ca xol la waaye du xol yépp dund xol yey dund nag fa la yàllay waxee yàlla na yàlla dundal sunuy xol ci siraatal mustaqim ndax yoon nga ko boo ko déggee boo génnee suma buntu kër gi booy dox yaa ngaa daagu fii ba Sandaga ana yoonu siraatul mustaqim alquran ango ndax li nga dégg nii yaa nga waxtaan ak yàlla mu leer la ni rek danga mel ni ku ko gis ay ba loolu lay tekki lii ma wax ni tey boo ma ko doon laaj ma jox la ci ay preuve dul jeex ndax lan laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kooku dama ko ngoy te boo daggee sama lépp ba mu jeex tàkk rek loolu moo fa ne waaw loolu base la de yàlla nañ ko yàlla may shukran yow Pamina jazakillah shukran ay sañu dem ndeysaan mu ni jamono yi nga xamante ni yu'minuuna bil bi nga waxu bàyyi diplôme ya nga bàyyi kontoru banque ya nga romb kontoru château ya nga romb la fees sa géej ga nga romb la taaru ci guddi la romb naaj wa la mu ëndeeg la mu doon lépp nga ne a ah, man am naa li am kat yàlla mii alquranam gi mu teg ko ngir man may romb lépp nag di ko fi ba waaw kay nag yu uminuuna ngëm ngaan googu nag waaye ngëm gu doy waaru la nag bil xoy bi waa léegi yow bu ñu doon laaj lan mooy preuve alquran ak ndax alquran bii la ak ndax lañ ca wax loolu la dama ni boo làmbee say cër kenn xamalu la ni yow mi kat wallax njaan nga booba microscope amul kenn xamalu la ne danu laa tegoon ci fuur boo xam ne yaxruju min bayna sulbi wa taraibi mënoo amit ku la mën a xamal wax la kàddu gi na gën a kawe loolu yàlla texeñ ci biir suuratul alaq suura boobu nga xam ne wan na la ne yow wallax njaan nga watara wallax njaan soosu ba mu la koy jagleel ba mu la koy def ba ngay fanaan ak borom kër borom kër di fanaan ak soxnaam bu nu nattoon manuyu bi dafa nekk lu mel ni gut googu ay milliards yi walax jaana ca nekk benn naa caa jàll dott fa nga xam ne fa la ko yàlla bëggee min bay na sol bi wa taraa bi yàlla ne innahu ala rajihi la qaadirun nee na danga ëmb juróom-ñeenti weer xëy teg ko ci kaw suuf nga yuuxu mu yuuxu mbaa nga yuuxu mu ne tekk mbaa yuuxu nga ne tekk ñu ne kenn dee na ca bu nu laxasee ca biir suuf sa di yóbbu foofu nga xamee ne yàlla nee na iqra bismi ka allazi xalaqa nangul ni sa turu borom bi nga xam ni moom la bëgg nga koy sabal di ko jàng kon alquran a ngoog ay lool looloo looloo ko taxoon a jóg sa yoo xëyee rek jàppal naa si di yéeg ba yegg baqara bu la fekkee ca at ma kon yaa nga ca tariqal mustaqim ndax yàkkamti woo dee saa yu xëyee rek yaa ngi bëgg daagu walla nu mu gën a neexee laajal ka dee te teguwul woon tànkam foofu yàlla taxañal na la fa àqi dundu àqi dundal la àqi rey la àqi deqal la waaye la nga gën a bëgg it wa uxraa tuhibbuunaha nasrun min allah nee na ndimbal loolu wàccal na leen ko mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nga ci alquran mooy rafle nga dee rafle nga bekkoor rafle nga feebar rafle nga ñàkk rafle nga toroxtaange te dange àddina nga sa loxo yaa yor caabi ga ëllëg caabi àjjana ngoog jox nañ ko kontóor ga mooy Mawla xolam ca boppam mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu nu laajee mbëggeel dangaa door dënn ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mbëggeelu yàlla kon boo dooree sa dënn ne ana sama mbëggeel saa yoo laajee mbëggeel danga naan fii suma dënn bii la nekk kon loolu lu for mën koo xotti ba génnee nag wala nga bañ loo ma li ma bëgg kooku du mës a nekk moo tax danoo ànd ñun ñëpp rek naan iqra bismi rabbika allazi xalaqa baatu xalaqa bu njëkk boobu nag foofu nga dugal sa bopp nag xam ne macha allah mawla sàkk na sàkkin boo xamante ni mawla jagle na jagle boo xamante ni yow dangaa xam ne kon faruloo dangaa xam ne ba ma xuñu la dangaa xam ne këntelu la nga wadd biir addina dangaa xam ne foofu nga jaar xalaqa boobu nag la mu ca boole dafa bëree bëree bëri ci lay soog a ne xalaqal insaana dama sàkk doomu aadama min alaqin cawul lax njaan ba watara ba kon foofu nga déggee ni bu ñu la laajee ne la kan mooy yàlla subhanahu wa taala lu laa war ne alquranam la benn alquran googu rek moo lay xamal ni la jant wi du mës doon ñaar jant wi ñu tiim du mos a soppiku ndax yàllaa ne wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dalika taqdiru l azizi alimi bato ba daw na di ca géej ga wax jàngoogu nasira macha allah jàmbaaru madina maa ngi laa fon kontaan naa ah ya salaam ya haja ulay shukran laki shukran laki macha allah allah allah allah maya ngoog ah waay fon naa waay lëng naa waay subhanallah kontaan naa yal na yàlla barkeel yaxa jaa yal na yàlla barkeel ay ci la ñu dem ndeysaan jant wi avion naaw na nga koy xool mu pëtëx mokk rub am yenn tambax ci biir géej gi mu mel ni picc mu daanu sey fa am yoo xam ne ba léegi ñu ngi kaa wër te booba ordinateur bu ne am na machine bu ne am na gànnaay bu ne am na wa yaaballaahu illa an yutimma nuurahu duñu mës a juum ba yéeg ca kaw jant ga nee nañu dem nañu ca kaw weer wa kon la in saaltahum man xalaqa samawati wal arda la yaqulanna allahu la yaqulunna allah la yaqulunna allah mawlaa nga naan laaj leen te saa yoo laaje laajee benn baata ngoog kana defar asamaan ak suuf danañ la ne yàlla waa nga laal ceebu yàlla laal dugubu yàlla nga ne doo laal alquraanu yàlla kan nga seddi alquran yàlla nee na parce que maa ko moom ba ko bañee nag dama la ko rombalal jagleel ko ñi nga xamante ne yu'minuuna bil ghaayib bi dañuy gëm lay kumpa duñu lu ñetti ndax duñu daj fa ñu jëm maaza baada al xaq illa dalaalu nee na boo tiimee ay ay ay dëgg nee na xaqu yemal waaye boo ko rombee nee na da nga jëyixee foo xam ne du foofu ndax daa fa fekk lu dul ndox te ding ko naan daa fa fekk lu dul xal te dana la lakk ba nga na ñoy daa fa fekk nag lu dul toroxtaange te daa ci tàbbi yàlla nañ ci yàlla musal kon danoo fekki foofu fa yàlla lay waxee rek ni wa na salaata ba nu jàngee ba noppi nag dañ koy daaguwaalee boo déggee ñu ne julli rek mooy yaa ngay dox bismillahi rahmaani rahim yaa ngi toog bismillahi rahmaani rahim yaa ngi taxaw bismillahi rahmaani rahim yaa ngi lekk bismillahi rahmaani rahim yaa ngi tëdd bismillahi rahmaani rahim looy mën a def nag koy mën a waxal waaye bu ñëpp desee ba jeex tàkk la nga sekk kenn ku ci nekk nga dellu ca yàlla axa kay yàlla nee na kookoy suma mbokk ahlullahi xasatuhu yàlla nañ ci yàlla boole bi jaaxi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boo déggee ñu ne julli wa na yàlla nee na dañu koy taxawal mooy dañ ciy téye nem ba tànk yaa ngi taxaw rek yaa ngi koy téye sa gëstu gi moom ay heure lañ la laaj waaye tànk yaa ngi dundu lañ la mën a wax doo teqalikoog moom loolu nga jàkkaarloog mbëggeel nga war a xam ne kon danga nga foqati ca mbëggeel kon dugg nga ca mbëggeel kon yow mbëggeel nga ci kaw suuf ana kan mooy yénn sa mbëggeel xal bu tànga sab soppe rek sab soppe rek man gis naa ñu bindal lu ne yaay sama yaay sama da ca des xel aka mottali waa kana mën a tere yàlla nag ne alquran a ngoog jox naa ko sama ca ka doy la bokk moo tànn àddina jox ko Seydina Muhammad jël géej gi def ko aquarium nabil Moustapha gis fa lépp nag waaye taxul nag ndeysaan ba mu koy xool naan kaan wa inna laka la maam xayra mamnuunin yow day pay gi ma la defal dana jàll say sopp yëpp am ko ba ëllëg ña bañoon sax da xool foofu rek ñi doon xam ne melamtaan màtt ko xam ne gëlëm wéq ko te gëlëm gëlëmam gu tedd googu tudd alxaswaa u dund na ca teddaange bantam jooju nga xam ne moom la daan téye keroog ba moo teqale ko moom dafa sab yuuxu laa ilaha illallah sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla xajalul nit ñi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla day doyloo na ci julleem jooju ndax na moo julli ci moom nee na kulla yawmin huwa fi sha'anin bés bu nekk rek mu nga ca mbir mbir moomu may mbirum yonent bi rek la de sallallahu alayhi wa ndax ne naka teraanga ci yow la innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha yonent bi mu gënal gi yàlla nañ ko yàlla jox ndax looy am rek amal ba ca gën mooy dëgg de kilo mburu danga kaa dagg di ci génne ay juróomi dërëmu mburu ak ci fukki dërëm waaye borom kilo bee mën mooy gën a regga waaye bu kilo gi àndeeg nag le mu la ca des xelaka mottali c'est daru xëya waa na nga tekki foofu nag na ko firi yow ak oustaz Kandji dama ni kilo mburu xam nga ne gën naa gaaw ca reggal day bu manqué rek dana feeñ ala kulli xaalin wallaay ndeysaan wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutcimukum li wajhi laa nuridu minkum jazaan wala shukura parce que sang bu tëdd bi ay nit ñi mu jagleel la dañ koo gëm bëgg ko ci biir mbëggeel bi la koo koy fatimatu bint rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tagg ko yàlla wane wul ne may doomu seydina muhammad xaaru ci seydina muhammad nabil mustapha di ko joxoñ yàlla mu xam ne nabi mii mbëggeelu yàlla la ku bëgg jubóog yàlla jubóol ak mbëggeel mënoo bëgg doomi Seyda Aminatu te bëgguloo Aminatu mënta ne soo bëggee jubóog Seyda Aminatu dangaa bëgg doomam noonu la mbir mi àttee yàlla nee na nag man doom amul place ca man jabar amul place ca man bàyyeekoo ma ci ndey ak baay waaye dama xool la gën a neex ca man kon ngeen xam ne yonent bi lu doy waaru la ku doy waaru la yàlla amul ndey amul baay kon élément bu manqué ca moom tax mu koy mottalikoo di ko sàkku ci ñun mbaa di ko sàkku ci jinne ki nit moo tax mu ne maa uridu minhum an yut'imuni maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imuni bëgguma ci ñoom luñ may wërsëgale la du lenn am na lu ko day fees na place am dell foofu ca moom dara gënu koo taaru moo tax na nabil Mustapha ndeysaan naka la ko naaj di laalee bu ko laaloon day seey la na ko daan tiim la maam ja ca moom la na ko daan tiim wa abiyada wa yustasqa alxamaamu bi wajhihi simaalul yataama ismatun lil aramili sanga baa ngoog kon ki yàlla xool mu jiital mbëggeel jooju fësal ko wane ko weddi gis bokku ci danga xool ka nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ci say cër bokkul ci say mbir dangaa gan di torox rek ndax fii du këru kenn ku dul këru Seydina Muhammad waaye ku yob yonent bi nag yàlla duma la yowmal qiyaam ña ko doon jam di ko ca xaj yi yowmal dañ ko fekk ca pont ba mu taxaw daan ko fekk ca arasatul qiyaama daanu ko fekk ca uyuun ya daanu ko fekk ca buntu siraat waaye mooy ubbi caabi àjjana ñu dugg ana goobu gàcc waaye yàlla nee na dama ko bëgg ba dama jagleel ñoo xam dama leen a faxas ndax bu nu ko jógee amaana dañu koo tilimal wala ba bu nu ko jógee coono laa yokk waaye moo tax mu dajale ña ko bëgg ñëpp nag yàlla nañ ci yàlla boole nee na ma ànd ak ñooñu moo tax kon ñii ko bañ dama naan leen dañ leen cee boolewul rekk nag waaye wallaay ndeysaan bu ngeen sañoon jot ca yal na yàlla yàlla saxal ci mbëggeel ba amin ya allah rabbal alamin ne leen day yàlla maye na de waaye dootu ko nangu day mbëggeel bi am ci ñun ah déedéet kooku moom ñam nañ ko ba kay moom xanaa leneen kay loolu moom dootul dañ moom sallallahu alayhi wa sallam sallu ala rasulillah allahumma salli ala sayidina wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim astaghfiruka rabbi astaghfiruka ya rabbi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran tayyiban mubarakan fih salawatullahi taala alayk ya rasulullah ya habibi ya muhammad salawatullahi taala alayk wa ala alika wa ashabika wa sallam ridwanullahi taala alayhim ajmain allahuma yaxfir li ummati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma yaxfir li mawta al muslimina wal muslimat allahuma baid baynahum wa bayna xataayahum kama baadta bayna al mashriq wal maghrib allahuma naqihim min al xataaya min azunubi kama yunaqa thawbul abyadu min addanas allahuma axsiluhum bilmaai wasalji walbaradi amin ya allah ya rabbal alamin rabbana yaxfir lana zunubana ربنا يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله kon ca noona nga jàppee xam ni boo bëggee sa yonent day yàlla nee na hudan jàpp nga ci rek nee bee ngoog shukran macha allah sayda nasira ya salaam jàmbaar kontaan naa alhamdulilah soppee ngoog waaw maa gën a sopp day yow ku ne xam na loolu day jazakillah macha allah shukran ay sañu dem yaa ngi ànd ak ku ñaaw kooku nag oto bi nga àndal nag ku ñaaw a ñaaw a ñaaw la macha allah barakallah yal na yàlla yokk leer bi incha allah boole ñu ko ay sañu dem ndeysaan yàlla dogal ca mbaaxam mu jagleel ñu xeet wa garab bu la ko yàlla xeñee ngay bàkku yaakaar na yaa poussière ba nga xam ne iblis moom laa gaanuwaayoo mbalit ma ñax ma bagage ya yella wala dul loolu daa yenoo yenoo yenu daal dee jala jala jal bu nu ko tuddee tabax ku ñu tabaxal ba noppi ajootoo tabax yàlla nee na tegul jullit lenn ci kaw suuf lu dul la yonent boo xoon rek maa asalukum min ajrin illa al mawaddata fi l qurba laaju ma leen benn salaire dul ngeen bëggal ma sama ñooñ ya mooy sumay xeet mooy samay waa kër waaye boo ko liimee mooy bu kenn tooñ kenn ndax képp koo xam ne soppe yonent bi nga waa kër rasulullah nga sallallahu alayhi wa sallam kenn gënu la wallaay ndeysaan shukran jazakumullah xayran seda mi njaay a ah, soppe shukran jazakillah seda ay wañu dem ndeysaan dangaa jàpp foofu rek sanga baa ngoog sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko def muy mbëggeelam kon mi ngi mel ni man mi toog boo déggee wax ji mooy man mi toog ma jël suma xool kii tey tegal leen ko ngeen jël waa jëmm ji nag moom xanaa bëggul dara kon da ngeen di bàyyi xel ne mbëggeel ma am na fu mu jógee ndëgam nag macha allah ñun ñi ñëpp nag fa tabarakallahu dañoo fekke baax bokk almadina am fi yonent bi sallallahu alayhi wa waa bu nu yàlla owul woon ci loolu du mës a nekk ndax dafa tagg ña nga xam ni ne wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahumu yunfiquun nee na bu nu xëyee ca julli ga la noo amee seen lépp yàllaa ko wax day julit nee na sa xéewal sa lëb daf la koo tegal ci naka inna ma al usri yusra faw rek nga kër kër ca tool wa jëmbat banaana ba yàlla ne ma jox la ko waaye doo tëdd ci lal mukk nag ma di la ko jox ndax lan mooy fii kërug naxe la kër guy seey la amul dara lu fi sax garab saxu fi gàncax saxu fi ndax ni ko noon garab du dee ni ko noon tool du ruus ni ko noon boroom tool du dee dégg-dégg la laaj day ñu bàyyi ci xel lool nag macha allah ñu bàyyi ci xel lool Seyda a ah Diallo jëri macha allah shukran foon naa la shukran jazakillah ay ca la ñu dem Seyda Oumé ay ca ñu dem ñu lëngoo rek ba almadinatul munawwara macha allah yal na yàlla fay yal na yàlla fay yal na yàlla fay ngeen ji fay di ma saw rek nag ndeysaan di ma saw rek nag di balu àq yàlla na yàlla nangul yiw yi yàlla na bokk ci suñuy sabab dañuy booleeg Seydina Muhammad ba lépp lu ñuy tiit suñu dund ak suñu ëllëg yàlla musal ñu ci amin ya allah ya rabbal alamin ndeysaan nabi nee almaru uma aman ahabba nee na nit ku nekk rek ka nga bëgganteel ngay dëkkal wallahi ndeysaan ñoo ko bëgg ndax bëggee yàlla la danga kaa déggee foofu de waaye daf koo indee nag ci anamu jëmma jëmma joo xam ne daf ñu ko jox ñun ñëpp ñu xam ne kon benn jëmma jooju lañu sunu yonent bi sallallahu alayhi wa mooy jëmma ju yàlla tatagal ngir mboolem xol yu leer ya mooy ñi nga xam ne ñooy ñooñu yàlla ya di ñi nga xam ne ñooy jàng alquran di ñi nga xam ne ñooy laabal lépp lu yàlla tere danañ ko daw lépp lu yàlla bëgg moo tax alquran di faram-fàccee naan allazina yuminuuna bil bi mooy ñi nga xam ni danoo gëm yàlla boo toll fii gëm gi daa gën di yokk di gën di neex caf gi gën di dugg ndax lan xam nañ ni yàlla rekk la bu doon neen ëpp nay tollaleeg ndox ndax yàlla bu ko neexoon daf la ndox laajal ndox lu ko weddi loo boppam dañ ma tënk def mu ndox moo tax ma yem ca ndox waa gàncax bu ne bu yàlla ne fëlal daa jël xoox ba daal di ko samp yàlla wutti ka bu fullikoo nag meññ ga ba muy sotteeg léppam la ca biir boo ko fekke woo kon foofu rek nga déggee nii la sax rek mooy na sax ci sa xol gi xam ni du taamu xam ne du tànn jagle la ak mayu yàlla ni mu la mayee dund bu la mayee nga xamee ko ca noona itam xamal ne may na la lépp wa man uutiyal xikmata faqad uutiya xayran kasiran yàlla nee na ko mu jagleel alquran gi jox la ko nga dégg ko jàng ko di ko di ko déglu nii rek donte jàngoo ko sax day nee na jox na la jàmm ju bëree bëree bari bëree bëri te yàlla nag yonent gi nag mboolem lu ko yàlla musa may terewul danaan kaan rek jàmm yëpp yëpp jàmm yëpp a ngi sa loxo may ñu ko kon namu ko ñaane woon mu may ko ko te moom dong nag la rus di julli ci moom àddina ëllëg yowmal qiyaam waxatuma ka kon noonu mu ko nangulee xeetam yooyu yàlla nañ ca bokk li ñoo ñaan mooy gudd fanak ak wér aajo guy faju zaahir ak baatin yàlla nañ ko yàlla defal waaye yàllaa ngi bàkkal de fasal ko it ci alquran noonu mu fasale it noonam ya ak na mu leen nar a toroxalee ak ni ñu toroxee fii ci àddina dangaa gëstu xool koo xam ne yonent bi dara newul ca yow xool ka ca colin ga xool ka ca melo ba xool ka ca fitwa ak na muy na muy cëlëx-cëlëxee ak na mu ñàkk dalee ak na mu gën a faqalee ak na mu gën a toroxee ci amin ga ak na mu gën a toroxee ca dëkkin ba ak na mu gën a toroxee ca melokaan wa waa waxuma nag muy dund rek na jànq laa mbaa mu ne waxambaane la waxuma muy tette boppam di dem ba ñu naan kaan tey yaafalu wala bopp wala tey yaa fi gën a yées wala bopp liggéeya ngoog ak diplôme yaag njàng maag lii la xeet lépp summa radadnaahu asfala saafiliina ak a jara bàyyi xel may ko rek xamul ñaata at la ko yàlla may kenn xamul lu la yàlla may waaye nee na alquran a ngoog ñaan leen seen wërsëg dana tempal ba yegg si du yéen a kaa wëri ñaan leen seen teraanga day baawaan dara du ko dagg wa inna laka la ajran xayra mamnuunin payeer boobu nag xeetu yonent gi yëpp ci lañ leen di fayee la dàq ci gàncax ga daan ko lekk la dàq ca meew ma daan ko naan la dàq ca sañse ga daa génn ndax ñoom la dàq ci ngelaw la daa dal ndax ñoom jàkk ja daa sar xollee laa ilaha illallah sayidina muhammadun rasulullah waaye deet biir kër ya ndaw la ñu nga leen di tuddee muhammad alquran nga ca daara ja mu nga ca kër ya mu nga ca mbedd ma ñu ngi koy saafonte ñu ngi kaa jàngee guddi ak bëccëg loolu mooy màndargay kay yàlla bëgg xiir la ci boppam wan la ca dëgg-dëgg ne yow mii kat jullit nga xaqan yàlla nañ ci yàlla boole bi jaaxi saydina muhammad sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima